jëf mbokku téléspectateurs yi am nañu mbégte dellu siwaat tey jii di leen dégtal seen émission bi ngeen xam ne mooy Pile ou Face am mbégte di fi dalal euh, ministre bi nga xam ne moo yor wàllu décentralisation ak collectivité locale yi euh, di monsieur le ministre Aliou Sow monsieur le ministre maa ngi leen nuy jox la kàddu gi nga nuyu ak mbokku téléspectateurs yi. Babaale maa ngi lay fay di nuyu waa réew euh, mm-hmm. mag ak ndaw jigéen ak góor di leen yóbbante nuyu président de ministre ak di leen mm-hmm. féddale yéen président continuer liggéey defar Sénégal ñëpp jëriñoo ko. Hmm. te wane ne daal loo xam ne ni luy yokk réew mi la luy yombalal nit ñi seen dund ak seen nekkin ma nga ca te tey la gën a taxaw ci loolu la. monsieur le ministre li ma lay njëkk laaj moo di am na benn décret bu génn euh, mën naa ñoo wax ne barke Dembo Ndiaye la génn euh, jëm ci wàllu découpage administratif wala redécoupage administratif laaj bu njëkk bi mooy lan moo sabab loolu. jërëjëf Allé. Euh, wax ji laaj ci bi am na solo ndaxte olof Njaay dane làmmiñ du lekk morom ma te muy dund fan yi nag dégg nañ ci wax yu bari euh, ku nekk wax la nga xalaat ak la nga xalaat lu sax léegoo léeg li waral découpage te tàmbaliwul ci ñun te du jeexee ci ñun mooy nguur gi dafa bañ a def dégg fànnaarlu askan wi ñu am seen xalaat seen i yéene bind nguur gi wala sees nguur gi wax li ñu bëgg am na barab yu bare ñoom ñoo bind am na ci yoo xam ne nii maa ngi wax sax li tam mbir bi fu mu juddoo d'abord loolu lay tàmbalee bi ma nekkee ministre délégué Amath soxo di chef de parti dafa ànd ak délégation yu jógee Jinaani ñu nekk ci Sédhiou Jinaani Daarang wut audience ci ministre d'État Cheikh Tidiane Sy ba ñu ñëwee ñu dara leen am Amath ci boppam de ni dañoo defoon découpage 2000 boo xam ne nii ñoom jàpp nañ ne nañ ko defee ménguwul ak la gënoon ca gox ba ñu ñu waxtaan ak ñoom ñu wax lépp indi seen dossier cadre dëkk ji naa ni bi yàlla def ma nekk ministre plein dossier bi comme que tàbbi woon na sama loxo ma ubbiwaat ko te kam tàmbali liggéey ba ci jamono jooju aussi délégation jógee ko Lexaar Pambal muy dëkk yu bari ñaar fukki dëkk ak nangam yi nekk diggante Thiès ak Tivaouane muy ay séeréer yu fa dëkk sooy mbokk séeréer yoo xam dañ ne ñoom ci jamono fu nekk dañ faa demoon ñu bundu xataa leen ba ñuy ñëw dëkk si dëkk boobu tuddee ko lexaar pambal ci seen kàllaama mu ngi tekk ne fii moom duñu fi jógee li ñu fi mën a teg luñu lu ñu fi góobee gar ko waaye sonn nañ ci jàbbantoog fi la ñuy toog ñu dem ba benn jamono ne dañ jël seen dëkk yóbbu yeneen yóbbu ci yeneen commune yóbbu ci yeneen commune te ñoom dañoo méngoo commune rurale ndaxte pambal bokk na ci dëkk yi njëkk a nekk arrondissement ci histoire Sénégal mais nekkul commune rurale ñu dem ba gis ci mbiru tarixa gis ci mbiru diine gis mbiru xeet mu recevoir leen di may kayit may leen bu leen taal pëna bu leen baaree yoon bu leen xasse xool leen nguur gi nguur na jël li war a def ñu commencé enquête ba laaj ñëpp def ku tàmbali loolu ci loolu nag ñu bëri aussi bind am dëkk yoo xam ne maa ngi lay wax am na dëkk yu njëkk am novembre boo ñëwee fu mel ni Paoskoto téeméeri dëkk la ak fanweer ci commune rurale loolu nit mën na ko ëmb ëmb nga dem fu mel ni Diosong ca novembre lay wax de téeméeri dëkk ak fukk loolu mënu ko ëmb bañ ko waxee li ñu def mooy ñu xool ni daal décentralisation li mu laaj mooy jegele askan wi ak fa ñuy dogalee ñu def enquête def lañu war a def laaj ñi seen xalaat ñi dégg fànnaarlu ñi joxe seen xalaat ñu def la def donc la ñuy def mooy la ko lal mooy wuyu askan wi te la ñu bëgg te la ko sooke ca njëlbeen ga jógul sax ci ñun mais ci ay opposition ñoo joge jàpp ne ñooñu seenu jooytu te rongañ yi nguur gi war koo fànq ñoom kenn du leen jiitu la koy fànq ñun aussi ñu dégg leen bu ñu nekkoon beneen nguur ah lii nag bu nekkee ni ki ko sooke wala ñuy indi ñooñu ñoo ngi bokk ci opposition kon bu ñu ko defee seen ñooy moom ndam li mais président Abdoulaye danañu sa wareef dina ko def même bu nekkee day jur ak séddoo ndam wala ngërmande wala sa keneen moom wala ko monsieur le ministre des fois nit mën na bëgg am benn bëgg-bëggam mu nekk ci li nga xam ne mooy euh, choix dëgg la mais yéen seen yorin ngeen xool ne buñ ko dagg-daggee tamit lu ñu leen di jox ci gox boobu du mate li nga xam ne moo nekk seen bëgg-bëgg ngeen bañ ko def. dëgg la xam nga dama ne la boo génnee novembre ak dëkk yi mujj boo ko boolee nekk na fukki commune ak fukki communauté ak juróom-ñett yu ñu taxawal mais la nga xam ne ni ay kayit yu nekk instruction boo ko tàmbali boo ko boole mën na juróom benn fukki kayit waaye jëluñ lépp dañoo jàpp ne lii mën nañ koo def méngoo ak intérêt réew mi méngoo na ñi nit ñi bëgg mooy li méngoog li gën ca ñoom. ci li xayma bi nga xam ne ni nguur gi def na ko yeneen yi dañ koo xaar wala di xool di gën a enquête ba am xibaar yoo xam ne dina gën a méngale suñu gis-gis ak ña ko sàkk woon ndaxte xamale ko léeg nit aussi day topp bëgg-bëggam mhm. waaye nag bëgg-bëgg mën na nekk loo xam ne du lu baax bu nekk lu duñu ko def xam nga nag léegoo parce que na gox yoo xam ne dagg ngeen leen mhm. mais seetlu nañ ne gox yooyu ba tey jii ñu ngi jànkoon ak ay jafe-jafe waaw ci wàllu wutum këyit dañuy dem ci beneen gox waaw loolu est-ce du ay impair wala ay imperfection yoo xam ne erreur la woon ci découpage. xam nga ndar xëyul sotti. découpage muy bi amoon balaa ñun bi am suñu jamono ku la wax ne lépp mucc na ayib ba mu mat sëkk ak barke ma ngay wax la ko neex jëfi doomu aadama du mën a mat waaye nag bokk na ci gore ak fonk askan wi boo gisee lënt-lënt nga daal di ko nga daal ko méngale ak yoon soow lu mu weex weexee mën na cee gis lu ñuul lu ci bokkul mm. waaye na nga jël sa baaroom seppi ko sànni loolu lu am na ci yoo xam ne mm-hmm. dañoo deferaat ndaxte nag buñ gisee ne lan amoon am lu lu jëng nga deferaat ko am loo xam ne ñu ñu jiitu woon ci nguur gi mm-hmm. nekkoon fi balaa ñuy président di jiite réew mi ñoo ko jëngaloon xam nga lu mel ni tey découpage commune d'arrondissement yi ñëpp d'accord nañu commune d'arrondissement Sénégal mbiru par parloo ko laloon jamono jooju boo jëlee région Dakar ñeent fukki coordination ak benn yu PS moo fi amoon bëggoon daggal ku nekk sa waaru politique wu ne jox la nga falu fa nekk sa buur sa buum mi nekk maire commune d'arrondissement moo taxoon ñu topp commune ñu sa coordination PSG dagg daggatee ko ay commune d'arrondissement. lu tax ba ngeen ñëwee changé wu leen ko. xam nga bala nga boo ñëwee changé day mel ni kii ko fi defoon li mu def baaxul da ngay bàyyi ba xayma xool ndax li mu def baax na baaxul jamono ñuy toll ñëpp a déggandoo jël naa ab euh, kuréel sama ministère buy saytu code des collectivités locales naka lañ ko war a méngale ak jamono ndax adduna dafay dox. boo xam ne dañ ciy saytuwaale ci benn ponc boo xam ne diggante ville yi ak communauté d'arrondissement yi ndax ni mu doxee tey gën na am déet maire communauté d'arrondissement yëpp d'accord ne gënut mu ngi ñëw te nga ñëw benn communauté d'arrondissement xam ne la nekk àlla ju ne gàññ la waaye maire ba la askan wi xam moom la ñu fal moo la ñuy wax seen i soxla ak seen i jafe-jafe waaye moo ala jafane munu koo jëfandikoo ville ba moo koy jël di ko doxal ne mu neexee bu nekkee ne diggante maire ville ba ak maire communauté d'arrondissement ba doxut askan wi. daal di ci mais ci loolu toog ngeen fi fukki at ak benn. waaw est-ce que impairs yooyu waruñu ko woon mën a changer balaa sax ñuy demaat ci élection locale yi ñu génn. waaw bala ñu doon changer loolu am na yu jiitu woon loolu biñ ñuy jox réew mi. Mhm. maire du Sénégal xam nga la woon ki ëppoon payoor ci maire du Sénégal mooy maire Ndakaaru payoor matul ñaar fukki junne matu ko woon nga jël ay milliards jox ko ay nit ne ko weer wu ne nga jël fukki junne ak juróom-benn loolu mooy kay lii nga fi ñu la saan na nga fa ñëw di fa lekk loo loo moomut loolu xam nga du lay la nga xooloon Sénégal li fi nekkoon ci communauté Sénégal jamono ju ñetti téeméer ak ñaar fukk la woon ñaar fukki communauté kott dong ñoo amoon daluwaay li ñu naan siège bu ñu mën a liggéeyee ñu yor seenu saag amuñ fu ñu dalee président yi man lii jombale naa ko sama réew damay tabax le hôtel communautaire mu jël bu ci nekk jege na ñeent fukki million fi mu nekk li ñu ci tabax mu ngi jege si ñetti téeméer hôtel communautaire Sénégal ñu fal ci gox goxaan mais yor seen i wala seen saretu bopp ci la jël ñetti oto ak ñaar fukk jox leen ko xoolu koo far afa ak ki fële kële far ndax ci Sénégal dafa jàpp ne ñi benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar mu dem ba tey koo xam ne ni meer nga Sénégal ak foo mën a far am nga payoor goo xam ne ni ay la yoon mu nga tee suturloo loolu moo ko fi andi uh-huh. mu dem ba tey di tabax yoo xam ne ni wàllu as àll ñu ñuy dugal di ko jox gox goxaan yi ma jox la fond de dotation bi ñuy dénk réew mi juróom benn milliard la woon tey jii nekk na fukki milliard ak lu jege juróom-ñaar uh-huh. fond de concours ya ñetti génn wàll ren def nañ ko fukki milliards ak ñaar ak genn wàll ak yeneen ak yeneen boo seetlu li gën am solo mais ñi liggéey ci commune ci communes rurales yi ak communes yi ak régions yi lu weesu fanweeri at ñu ngi daw pour am statut fonctionnaire ñu leen di dàq di leen bant barité di leen toroxal fan yi ñu génn ci tegtalu président la dane ma nangootuma doomu aadama fa muy sutulloo ñu ko fay toroxal di ko fa sànni amul ëllëg amul retraite amul leneen ba fay ñu lu loi boo xam ne ni li naan statut général fonctionnaire des des travailleurs des collectivités ña ciy jëriñoo ëpp na fukki junnee njaboot ci biir Sénégal. léegi loolu loolu dañ ko war a wax loolu. mooy ay réalisations yi ngeen def ci collectivité locale dañoo dañoo dañoo bàyyee loo xam ne nii ay léwén xam nga tool bu booy. tool bu booy boo ñëwee war koo song fu ne ngay war a tàmbalee ngay fonk. léegi <laughs> monsieur le ministre ñu wax ci redécoupage ba tey jii. waaw ñu bëri ñu ne euh, ci gis seen gis-gis. ay mhm. raisons politiques. électoraliste moo tax ngeen def lan ngay tontu ci loolu. d'abord xam nga askanu Sénégal yàlla may nañu xel booy wax ak ñoom jox leen respect bañ leen ndax xam nga ministre fonction politique la d'abord nañ ko leeral danga war a nekk ndey ji seex yemale ñëpp ci li ñu la dénk waaye aussi bu ñu fàtte ministre du concours moo koy joxe du examen moo koy joxe kóolute ak yaakaar ka ñu ca bopp réew ma moo la fay tabb benn. bu ñu fàtte ne commune rurale ak commune ak région ak état amul kujjee gu ca nekk ndaxte dafa mel ni garab gu taxaw di état commune rurale wala commune wala nekk bànqaas wa kon lu baax ca garab ga rek war naa mën a baax ci bànqaas ga lu dal bànqaas ba mu war naa mën a ak métti ci garab gi nga xam ne dafa taxaw loolu donc kujjee amu fa lenn ñaareel ba découpage li tubaab di wax gerrymandering cosaanawul Sénégal ab ab gouverneur bu nekkoon Amérique bu bëri xam-xam ñu tuddee ko moo doon def ay découpage yoo xam ne ni ci liñ gars yi doon wax day sopp résultat élection ya ci lañ doon waxee mhm. ci démocratie bu mag la jógee loolu ju Sénégal ñun loolu taxu ñoo jóg li ñu tax a jóg mooy méngale as suñu jëf ak askan li mu bëgg xam nga dégg naa ci wax yu bëree bare bëri am na ñu dañu ñëw seppi ay communes rurales ak ay communes opposition pour néewal leen doole ma leer la léegi boo demee tey njuum njóobeen sa boo demee tey njuum gent mhm. ka ko jiite di Ibou Cissé Loukaar moo nekkoon tête de liste départementale bu PDS ci élection locale yi ñu génn pour conseil régional nekk tête de liste communautaire am gagné ko nekk président ba tey ji dañ ko découpé xaar ko ñaar Ndiobène Sambalaama Ndiom Gént dañ ko def moom bañ ko bindee. mais benn benn yoo leen tànn maa ngi ñëw maa ngi ñëw benn benn yoo leen tànn rek pour du benn benn boo demee tey Louga mhm. Njaañ communautal bu Bàcci Caam dañ koo xaar xaar ñaar def commune Njaañ ak communauté la Guet Ardo dañ ko di délégation spéciale nga dem ti Linguère Sagata Jolof mhm. ka ko jiite PDS la dañ koo xar ñaar nga dem Mbëllaxi ka ko jiite URD la dañ koo xar ñaar nga dem Maabo man dëkk communauté ba fukki dëkk la 80 villages ka ko jiite la dañ koo xar ñett nga dem Ourour département premier ministre muy Guinguinéo communauté ba koo dañ koo xar ñaar lim bi du jeex xam nga loolu kay naa wane na ne boo demee Sangalkam nga ñuy wax ka ko jiite bokkul Benno ci li ma xam PDS la bokk ndax seen parti ba seeyoon na ci PDS désité woon nañ ka ko jiite ba ki dem boo njaay nee na moom mu ngi ci PDS génn fi bàyyiwul ko du PDS wala ñoom dañoo far feneen wala man daal wax ji jaaxal na ma trop. mais Sangalkam sa lu tax jur coow. xam nga parce que yéen da ngeen leen fa délégation même man mii wax yow même man mii wax yow man maa ngi jaaxle ci loolu ndaxte. mais da ngeen fa defoon délégation spéciale dañoo créé mais foofu gis naa fa askan bi ñu def manifestation ñu ne ñoom bëgguñu ñu dagg Sangalkam tas ko. waaw te yéen da ngeen ne da ngeen sukkandiku ci bëgg-bëgg askan wi pour def loolu. gis nga loolu. Mhm. bëgg naa nga gis li ma gis tamit mooy barki Demba Ndiaye lu met juróomi junnee doomu aadama daje nañ Bambilor di feetu naan ñoom li ñu bëggoon suñu gént démb Ablaye Wade defal na ko bëgg naa nga gis ne ci bi archive yaa ngi fi lu matul weer ca ginnaaw. Mhm. lu ay téeméeri doomu aadama ñoo nañ sama ministère jógee ko Tivaouane Pël ne dañoo bëgg communauté rurale ka ko jiite xam nga kan la woon. mooy maam Amadou Ba. Amadou Ba boobu élection ñu génn dafa def liste boppam tuddee ko renouveau ànd defar Sangalkam am ñaari junne mu ngi nii am ñaari junne yi euh, carte euh, amoon amoon ñaari junne yi ak juróom-ñeenti téeméer ak lu teg. moom kott dong te mu dëkk Tivaouane Pël waa Bambilor muy borom dëkk yi muy kilifa yi muy gone yi muy mag ñi ñëpp a ñëw àndandoo ñëw soo ministère ni li nangam nañ bëgg ñëpp a ko dégg lan moo bëgg a tax ñu jël nopp rek may ko ka nga xam ne nii moo gàngooram te la ñuy wax waa ji waxul mbiru intérêt du gox ba de xam lu muy wax du ma nangu ama délégation spéciale mooy biru boppam moom la muy yor la muy jëriñoo la muy mbubboo mais la nit ñi waxul dëgg dama noonu du ma ko tontu du ma ci wax parce que li am président comité Sénégal ñetti téeméer la ak juróom-ñaar fukk découpage bi ñaar fukki dëkk ak juróom-ñett yu bees ay sos lan moo tax ñoo cee seppe benn kott dong bëgg di ci wax suba ngoon guddeeg bëccëg mel ni ñeneen ñi moom fa ñu nekk daamul daraja wala ñoom dayamul maqaama ndaxte yaa gën a saliru yaa gën a yuuxu. mais parce que ñoom parce que parce que mais euh, monsieur le ministre parce que politique bi politique bi ñoom la tàmbalee lu tax ci ñoom la tàmbalee. bi nga leen la këyit ne joxe sa xalaat mais joxe sa xalaat au lieu ma joxe xalaatam mu jël rajo ya jël mbedd ya jël télé ya di xarab di xaste di xaxar di tëkku di dànkaafu naan ku ko xotti ma daaneel nguur ga ma ne waaye lii moom ban réew lañ ne ab citoyen naan bu ñu defee lu lool yoon laaj te man d'accord ma ci anaasu ma dinaa daaneel réew ma moo tax ma doon xam mu daaneel réew mi mu ngi mu daaneel nguur gi mais léegi xam lu tax gaa yi bëgguñu délégation spéciale léegi gox goxaat yi ngeen tas yëpp da ngeen fay def délégation spéciale xam nga loi bi 193 xaw ma lan code de article 193 bu code bi moo ne boo jëlee communauté rurale nga xar ko ñaar wala nga wàññi ci benn dëkk wala nga yokk ci benn dëkk loo xam ne dagg-dagg ba laal na ko rek loolu day daal di tas communautaire ba nga defal dara spécial ñu nekk fa doxal ba wote am mais pourtant commune yi tey ña nga xar baat ñi def ko ñaar créé commune Sendou mais loolu am parce que loolu loi ba waxoo ci dara conseil régional loolu am na loi bi waxoo ci dara mais communauté li ci wax dafa leer nañ. kon da ngeen def délégation spéciale san Sangalkam. nañ ko def Njaañ Njaañ. PDS jiite ko non mais Sangalkam laa a xam dinañ ko def Njaañ. Mhm. dinañ ko def Ngent euh, euh, Njum Ngent. Mhm. dañ ko def Maabo. dañ ko def Uruur dañ ko def Sagata Jolof dañ ko def Sangalkam dañ ko def Jaxaw Siin ca boppam ca Fatick. mais c'est xamul ma jaaxal loolu est-ce que. li nga xam ne par la main droite moom la suffrage yi joxe. waaw ba fal tabb seen maire moom ngeen nanguwaat par la main gauche teg fa benn seen seen euh, délégation spéciale. politicien du politicien du ko jiite délégation spéciale koy jiite mooy koo xam nii. mais sa kilifteef lay nekk yow. waaye mais koo xam ne nii bokkul ci parti koy jiite. mais sa kilifteef lay nekk. mu nekk sama kilifteef tamit. mais est ce que du yéen tamit politique def que du loolu moo tax gars yi di wax ne politique parce que Sangalkam defoon ngeen fa délégation spéciale gars yi ñëwaat ci dellu siwaat toog boo leen ko bëggee tas defaat fa délégation spéciale est-ce que du loolu moom moo naqadi askan wi fa yeewoo na ñoom dañoo bëgg maire bi ñu fal toog mais bu lox askan wi nee ñooñu ñu ànd ak moom ñu ànd ak moom ñu ànd ak moom d'accord ñoo bëgg mu des fa ngir ñoom seen mbiru bopp la ñuy xool mbiru Omar Gueye ma ko jiite moom lay wax moom coow li yëpp waxul askan wi de sama délégation spéciale bi duma ko nangu sama far pal gi duma ko nangu xam nga nag état ni muy doxee mooy boo doon jël tey di defar yoon boo boo taxawoon immeuble li ngeen nekk fi ñu nekk nii. di def émission bi macha allah bërëb bi rafet na lool. bu fi état jàmm amoon tey jaar jaar ne foofu dafa war a jaarale fii yoon wu dem Bargny wala war dem Rufisque ñi koy jëriñoo am lim lim bi takku lool li ngeen ci alal bari na lool. tàmm ngeen ko bëgg ngeen ko nekk na seen xol ndaxte dafa bokk seen dund waaye boobaa état du gisati yéen seen intérêt yéen kott dong day xool intérêt mbooloo mi gën a am solo wala li mu gis ne mooy li gën jaar la fi yoon wi. est que jàpp nga ne Sangalkam loolu moom mooy intérêt mbooloo mi yëpp. man li ma gëm li ma saytu kay li ma gis li nu dégg enquête yi ñuy def li mu wane mooy développement Sangalkam gën naa gën a gaaw ci bu jaaree ci nañ ko xottee tey def commune Bambilor communauté la Bambilor communauté lu Tivaouane Peulh ñàgg commune ñàkkul rek jaaxaay parcelle ak commune Sangalkam wax gi bu nekkee moo ëpp mbooloo foofu mais après bu nekk m ba ñun ñun li ñuy def mooy ba ñuy def liggéey boobu gisuñu ay nit. mais lu tax daggu leen ko woon avant élection élection locale yi. ngeen bàyyi lu tax daggu ko woon avant élection locale yi ngeen bàyyi pas euh, trois ans après élection locale yi ngeen def loolu. lu tax la bu nekkoon ne yàq ñu tax a jóg duñu xaar trois ans mais déggu li ma àdduna tabax boo koy def lii dañ koy def tey lii ëllëg lii gannaaw ëllëg lii nga tàmbale ko xëy na démb lii mënut a sottandoo am na ku taxaw naan ma xam ngeen gox goxaan yi ngeen dagg daggat ma ne ko boo xoolee buñ daggate rek am na fu ñu ko lal fu ñu ko teg wax naa léegi dëkk yoo xam ne ay commissaires yoo xam ne téeméeru dëkk ak fanweer xel mënu koo nangu boo demee tey France la fa nekk ci commune man na fanweeri junne commune ak ñaari junne téeméeru commune yoo ci jël mhm. juróom-ñeent fukk ya ña dëkk di fa yeewoo seenu lim ma nga tolloog wala matut ñaari junne doomu aadama xam nga ñun am na ñu dem sax bay xalaat ne réew mi dañu war dem sax ba def ay commune rurale généraliser partout def ay commune am nañu xalaat loolu lu nekk ñu ñu xel li ñu ko wax mais adduna dafay dox dangay ngay dox ànd ak moom mais li gën a bon mooy ñu sumb am mbir nga fàtte ñëpp yow gis sa bopp kott dong boo seetloo wax ji yëpp ñuy jo ñuy wax ñuy wax yëpp mooy ñi mooy ñi ndombo yi ak teraanga ji waaye dañu fàtte askan wi moo tax maa ngi profité di di gërëm di sant di rafetlu yenn président yoo xam ne dañ bokk sax sunu parti mais ba ñu waxee. am na ñoom dañ ñëw boo jëlee par exemple fu mel ni Njaañ uh-huh. dañ def seen conseil rural xam nañu avis dañ def avis unanimité mooy ñëpp nangu nañ ngeen xotti ko ñaan ndaxte mooy njëriñu askan ëllëg parce que yéen a bokk parti ah, ñoo bokk parti ñeneen ñi dañuy jàpp ne tamit da ngeen bëgg a nangu li ngeen yor boo demee Ourour que jiite président comité président comité Ourour uh-huh. ñoo bokk parti waaye moom nanguwut dafa wote contre mu ne moom nanguwut ñu xar waaye nag avi boobu ñuy wax xam nga li ci yoon wax dane bu nekkee da xar commune rurale wax naa la ko de. Mhm. da ngay laaj avis commune rurale. est-ce que def ngeen ay études ñu bëri dañ leen di reprocher loolu études yu sérieuses ngeen di jël décision yi. yow tamit état ni mu toll ak nguur dina ñëw toog rek di di di xafar yi def loo xam ne nii tegu ko ci loo xam ne nii njëriñu askan wi la walla loo xam ne nii mucc na ay xam nga mu ngi mel ni PAM commune loi bi li mu wax dafa leer. Mhm. article 82 bu code de collectivité locale dane boo bëggee. jël ab commune xar ko wala wàññi ci yóbbu leneen wala jël leneen indi ci commune ba dafa laaj loolu euh, rëpp ka toogal ndawal buur foofu muy préfet ba mu def enquête boo demee tey Bargny enquête ba jël naa ay weer lii gendarmerie lii police lii préfet ya service technique ya waa domaine urbanisme ñëpp lañ dugal def enquête bu mag a mag a mag maire ba ca boppam def nañ ay réunion ay comité technique jox ma dossier ñu xool ko day xamali waa gaañ ñi war a fàtte bañ a war a bañ war a bañ a fàtte mooy opposition bi mais c'est la première fois ci histoire du Sénégal ñuy def découpage boo xam ne ni lu ma ñeent wala juróom wala juróom benn weer ñu ngi koy waxtaanee bala ñu def décret yi bu njëkk da ngay toog yeewu ñu décret yi pare na mais bi man dama ne duma ko defee noonu du ma xuumtoo du ma ko sëggoo duma sëgg damay jël li loi bi laaj mooy jël bind préfet yi bind gouverneur yi ñu bind préfet yi bind sous préfet yi bind conseil régionaux conseillers yi dañ jox leen seen xalaat def ay commission def ay étude def ay enquête ba lépp pare moo tax wax ji yàgg coowal sàngalkat bi bi ñu ko tàmbalee léegi yàgg na de mais xëyuma rek yow def décret bi de dañu jaar fi war a jaar yëpp ba lépp pare mhm. ñoom pendant que man maa ngi def suma liggéey ñoom ji rajo yeeg mbedd yeeg télé yi di wax booba léegi déggoo ma maa ngi ci njëkk a wax ni mais découpage bi dina am ay conséquences ci wàllu cartographie waa xam nga loolu dëgg la la mooy mais yàqul dara ci wote bi munta soppi lenn outil ci askan wi liñ bëgg ak lii la ma def xam nga tey bu nekkee yow sa carte électeur dañ cee def yaa ngi wootee par exemple Bargny ñu def commune de Bargny carte boobu il faut ñu def ko léegi commune de Sendou waaye lu mënta wàññi dara ci yow la nekk sa xol sa yéene ak say pexe ci par rapport ak wote yi mënta yàq dara révision liste électorale yi mi ngi fi des na encore ay weeri weeri weer découpage ginnaaw loolu aussi bu nekkee ne dëkk bu nekkoon par exemple commune rurale nekkoon chef lieu arrondissement da nga soppi commune arrondissement bi da nga koy toxal ndax te d'habitude arrondissement du nekk ci commune. Mm-hmm. loolu aussi conséquence la. beneen euh, conséquence bi bu nekkoon ne déco def damaa bàyyi ba ay weer ci kanam ma def découpage bi mën na néewal doole yenn collectivités locales yi xam lu tax ndaxte la fa nekkoon ci alal la ko néew wala mu bari loolu ñuy séddale la kenn moom la ñuy séddale ñaar waaye damaa fexe bala ñuy def répartition fonds de dotation yi ak fonds de concours yi ñu def bi ba yu bees yi nga gis ni uh-huh. déjà ci bi ñu signé. koppar yi war a dem ci ñoom def naa ko ci ba pare. Hmm. tey boo demee nga tas nii ba pare jox tas nga ko jox naa leen ba pare. cest boo ñëwee tey Sangalkam commune. waaw am na fonds de dotation fonds de concours am. boo demee communauté rurale Bambilor hmm. am na fonds de concours fonds dotation. boo demee Tivaouane Peul am na ko. boo demee tey jaxaw commune Jaxaaw am na. kon yow da nga daas fanaana ah? kan man hmm. xam nga daas fanaal boo xam ne moo ko méngaleeg yoon. <laughs> jaarale ko ci yoon jël ay weeri weer xalaat. xool li yoon laaj laajte lu ne xam nga nag wax ji yëpp li ñu war a wax. Uh-huh. coow li euh, coow li li ko andi mooy ñuy def suñu liggéey nit ñi di politique yeewu nag naan ah ñun suñu politique bi ëpp na xale baa nga doon def liggéeyam naan ay digg naa fi lu ne ay mise en demeure am na ñu ne sax Aliou Sow amul droit. def mise en demeure président conseil régional. loolu amul droit xam nga loolu xam nga yoon li wax xam nga yoon li mu wax mooy. Uh-huh. dañ ne. article 193 bu code des collectivités locales. Uh-huh. alinéa 3 moo ne booy xot booy xar communauté rurale dafa laaj nga laaj xalaatu conseil rural ba ak conseil régional ba mais xalaat boobu ñuy joxe tënkut nguur buñ ne waaw wala ñu ne déet wàññiwul dara ci nguur la na lam na def xalaat ba dañu xool rek ñoom la ñuy indi lu mu mën a yokk ci ñun li ñuy liggéey ak la ñuy saytu bi loolu amee mais yoon daf ma may article 43 bu code des moo may. nguur mu oote mu laaj conseil dañ def seen seenum ndaje article boo xam lu mu wax mhm. dane session ordinaire bu amut session extraordinaire mu nañ koo oote ci anam yile président conseil régional ba mën naa jël ndogal ne day oote article day see oote session extraordinaire conseil régional ba ñu fa ne boo jëlee nga xaaj ko ñetti xaaj benn xaajal ba te ñett ya am nañ sanction bind ne dañoo bëgg def session extraordinaire ci poñ nangam nguur ga ci loxo yi ak jaan ak euh, ci loxo yi gouverneur ba ñu fa toogal am na sañ-sañ bind constitution neen leen nguur gi bëggoon ñu def section extraordinaire ci mu gën a gaawee ngir saytu ko nangam ak nangam kon kay bu ma neexee man am naa droit li ñuy wax calendrier conseil régional am naa ci pouvoir parce que bu ma neexoon su ba bind gouverneur ne ko dama bëgg nga wax conseil bi ñu oote session extraordinaire ngir saytul ma yoo xam seen xalaat ci nangam loi moo ko bind article 43 bu code des collectivités locales bu ma leen waxee loolu comme li ma ko defeek ak ñoom dama leen bind leen gouverneur ne ko waxal ñooñu ñu daje session extraordinaire dama leen soxla ngir ñu waxtaanal ma jox ma seen xalaat ci nangam. Mm-hmm. tontu wuñ ma oote wuñ gouverneur defaat lettre rappel mooy fàttali ah yéen nag nguur gi buggoon a nangam ci yéen waaye defu leen ko ba tey defaat leen def leen ko ñu leen koy fàttali xëy na ak pàtte la ñu yóbbu leen fàttali lettre boo xam ne le 25 mars 2011 la ñu ko bind fàttali googu ñu dégg fànnaablu bi ñu fan fanweer man nag li may liggéey du ma nangu kenn di ma gàllankoor li tubaab di wax dilatoire ko nangoo bàyyee kenn bi ñu defee seen yooyu loi bi dafa may article 54 maintenant bu code des collectivités locales dane li yoon loi ak règlement teg président conseil bu ci wàcceewu yelleef ak lenn ci la wala lenn loo xam ne intérêt conseil régional la mu war koo def defu ko ministre des collectivités locales yoon may na ko mu artu ko li ñu naan mise en demeure ne ko sama waaj ji nangam wax na nga def ko defuloo ko jox na diir sàngam nanga oote jox ko dele ne ko mettre naa la en demeure ci diir sàngam bi na nga oote ndaje conseil régional session ne ngeen waxtaanee nangam boo ko joxee délai boobu bu délai ba mate dañ ne délai boobu matee te tontuwuma bañ a tontu boobu mooy bañ naa te bu bañee yoon dafa mayat ministre ba mu jàpp ne carence am na mu daal di li ñuy wax instruire d'office le dossier ci place conseil bi dama koo bind artu ne ko may naa la juróom-ñetti fan nga oote conseil bi juróom-ñetti fan ya jeex le 17 mars oote wuñ naan waaye ñoo dugal ay dossier bi. ñoo dugal mais ñoom ci décret bi. maa ngi ñëw maa ngi ñëw ñu ne dañoo dugal ci dossier bi lu bees ak lu beesul ak nangam nangam ma leen d'accord ma ne woon ne ma da 17 mars bu jotee daal jàppaleen sama artu jeex na bu boobaa jël naa seen place instruire dossier ba parce que seen bañ a tontu bi li mu tekki mooy bañ ngeen mooy da ngeen maa dànkaafu daal. léegi mënul passé ba délai ba passé ñu doon ma bind ab leetar danga waaw la ñu bind dañu araftu dañu artu neexuñu te la ko daal ci loo xam ne nii day rafetal nekkin wala suñu diggante ak yéen ndaxte kayit bi daa am lu ci bees wax daal mel ni ko dama waroon bind loolu bala délai bee jeex boo bind loolu ci loolu bala délai bee jeex ma jàpp ne ak ah, kon de moom bañut xëy na léegi li ma ko la kon naa naa dindi loolu bàyyi ko mu oote bu ma joxee date bi mu bëgg a oote. Mhm. waaye ba mais da koo yéex a def fekk man dinaa sama dogal bu mu bu mu ko yéexee def ba boo ñu oote nag seen conseil boobu le 29 boobu di dajee seen oote boobu man man liiwuma engagé wu ma parce que sama mise en boobu moom laa jàpp ne. mais délai ba jeex na. fi mu ne mën naa jël sama pouvoir jël substitué wu a jël su matukaay gi nga xam ne mais yow monsieur le ministre da nga bëri ay problème ak ñuy gérer collectivité locale. d' accord uma xanaa du waa Benno lu mu ko gañe moom moo tax. mukk laa dina xam nga man ma wax la leen parce que ma jox la beneen yaa ngi nii waa mairie Dakar ne dañuy baptiser yenn rii tuddee ko ay tur nga bañ pourquoi. bañu euh, bañ xam nga leen mooy dama leen euh, dem si yàlla wal jooju Njaay mhm. yàlla ko yàlla xare àjjana dem si yàlla Mamadou Dia ko yàlla xare àjjana bokk nañ ci patrimoine senegal ci jëf ci jaar-jaar ci ngóora ak ci fit ak ci nangoo jël seen bopp lépp jox ko Sénégal mhm. te calculé ci lenn kooku ñëpp a leen bokk place indépendance bi ñëpp ko bokk kenn moomu ko dafa dafa symboliser jaar-jaaru Sénégal histoire u Sénégal ma président la république mais ñëpp xam nañ ne jamono ju métti ji amoon diggante Mamadou Dia wal joojo ak njiitu réew ma moom kott dong moo fi nangu woon jël robbam ne taxaw naa leen nekk seen avocat kooku kay xanaa gën naa ne kenn du leen kenn ku ko jiitu ci luy màggal luy sargal luy sargal doomu aadama yooyu ak seen i njaboot loolu problème amu ci ñun ak Khalifa Sall amuñ ci problème damaa yeewu bés. taskati xibaar yi bind ne voilà dañ dañ jël place bi tuddee nañ ko diw sàngam ma au préfet bi ne waaye li may dégg ci rajo yi moom rajo moom xam naa du source officielle waaye loolu xanaa buy am dina am délibération bu yegsi ci yow xanaa nag place boobu mais euh, est-ce que boo loolu c'est classé loolu bala di ci wax lenn war na ci waxtaan ak nguur gi nekkul place n'importe quelle place bala nga koy ngéntee leneen da ngay waxtaan ak nguur gi bi nu waxee loo pare mu vérifié ne ma délibération amu fi loolu xam naa euh, waxu rajo yi la damay amagul donc amuloon ma pare ci ba pare ne ko bés bu nu waxtaanee lu mel noonu place position bi ma lay wax mooy. Uh-huh. ba leen bind lenn di ko nangoo war a bañ nan wax nguur gi d'abord lim ci xalaat parce que ñun dañoo amoon yéene boobu d'abord màggal ñaari doomu adama yooyu doomu Sénégal yoo xam ne ñëpp war a sargal. Uh-huh. ñu waxtaan ci mais xalifa euh, ay léewén naa rafet ni mu ci doxalee waxtaan nañ ci téléphone. xam nga journaliste dama dem wax assemblée nationale lii ma wax laa fàttali foofu ñu yeewu ne nag su sumbati na xeex bu mbees <laughs> moom de na gaañe de. daa mën a sumboy xeex rek moo sa pare na léegi indi coowal. waaw ngénte ma ne ah mais xam nga comme ñun am na yoo xam ne duñ ñu yóbbaale ñu waxtaan ci président ci boppam moo gën a nangu loolu président ci boppam moo gën a am yéene boobu xalifa loolu jógul ci xalifa sax loolu la bëgg nga xam nag ngénte boobu. wan na ma ne jógewul ci xal ci ñoom waaye fi mu nekk lees mooy mais moom comme que. kon léegi d'accord ngeen ci c'est seulement mettre en forme. léegi mettre en moo des. voilà yónnee na ma kayit yi dinaa saisir premier ministre ak président de la république yónnee nañu ma délibération yi yëpp ñu jàpp bés boo xam ne dañuy ngénte kay ngénte nag mooy président moo war a joxe tur ci réew mi moo war a ngénte moo war a ñëw wax ci nopp liir ba tur yu ñu ko jox. wante du doon Khalifa Sall. ah président daal moom moom loolu. du doon Khalifa Sall. Khalifa Sall doom doom <laughs> président la ay combat Khalifa pré Khalifa Sall doom président la sama mag la amuñ problème barki dama ñoo añandoo ci invitation am man moom ak Ablaye Balde xam nga nag ñu wax la Sénégal ñu civilisé lañ ñun mën nañoo bañ a bokk parti waaye mbokk geeg dëkkandoo geeg àndandoo geeg. mais surtout xeex politique moom yow da nga ko mën. ah sëñ bi nag ma wax la leen nag xam nga alpulaar lu ñu wax. Hmm. bu suusaa kuré laa moo taa ko ku ñëmul sox doo falu njiit da war a am fit. bul yee fitna buñ la ko xëppee na nga jàkkaarloog moom. mais yow da nga yee fitna. des fois dina loolu wax la rek. loolu <laughs> oh, léegi léegi léegi ñu wax ci sa digganteeg yàlla xeexoo collectivité locale yi bennoo yor. ma ma ma firnde leen ne xeexuma leen. sa digganteeg yàlla Aliou Sow. yàllaa ma tiim boo la wonee ñoom bataaxal yi muy bind léegoo léeg dañ dama leen bett ci li ma foogee woon dëgg la bi ñu ma joxee collectivité locale yi dañ jàppoon ci njëlbeen gi ñu baree bari am fu ma doon xaar. dana xale UGTEL boobu xale bi doon jiite xale parti bi te muy xeexee na xeex yi kii lañ si yónni fii lii pour saa saaxee la mais ay weer lañ def ñu xam ne non lu taxumaa jóg xamal lu ko njëkk a firnde uh-huh. ba ñuy taxaw kuréelu maire Sénégal yi waa PDS ne ñoo gën a bari waa Bennoo ne ñoo ñoo am kuréel yu dëkk yu mag yi donc ñooy jiite mën di coow li ne kat na jon man maa dox ak ay yenn meeru Bennoo ay meeru PDS ne leen bu leen nangoo xaajaloo di féewaloo bi ñu leen falee pare ngeen géej nekk ay meeru benn meeru PDS nekk ngeen ay meeru Sénégal meeru ko goon Sénégal waxtaan ak ñi yéeg wàcc ba ñuy def bureau boo xam ne ni wate wuñ dañ def bureau consensuel maa ngi ciy gërëm ñu bari ñu ma ci jàppale ci liggéey boobu dama jël sama téléphone au Khalifa Sall au Moustapha Ka maire au maire Jacques Bodin au Madiyana Diouf au Aminata Mbengue Ndiaye téléphone au sama waa parti ñi ma recevoir leen Omar Sarr jàpp ci ñu waxtaan ñu ñëpp ak ñoom Balde ñoom Karim Wade ñëpp ñooñu ñun dañu bëgg nañu liggéey ba féewaloo bañ am loolu ñu dem ba dem am bureau boo xam ne dafa consensuel association maire Sénégal yi mhm. bi may dénk ministère bi subvention bi état doon jox xam nga ñaata la woon quatre-vingt-dix millions la woon bi cent cinquante millions xam nga ñaata lañ leen jox mhm. deux cent millions leen ne bu juboo rek ñu dooleel leen dañ doon xëccoo bu njëkk moo nekkoon président conseil d'administration bu ADM ma leen développement ko moom moomu leen ko de ñoo leen dénkoon poste poste ba comme que mooy xëccoo beeg yooyu ku nekk teg ko bët. Ah. nangu naa ko maay président ba léegi. léegi man maa ngi pare ma de boo nekk président ba ne mais bëggu mu yàgg sama loxo bu ngeen juboo rek. ma jox déggoo ma delloo leen ko bañ defee bureau consensuel semaine laa ci teg ma ñëw oote conseil d'administration ba ñu fal Ablaye Bal dama ko jiite. léegi. kon kuy defee loolu kay du yàq. non ma coow suuf si fa leen ci tolloo yéen ak ak ak mairie Dakar. coow suuf si président dafa diggee woon ay terrain ba léegi gisaguma mu joxe ko. kooku euh, jamono ji ma wax ak yow réeroo amatu ci juboo ngeen déggoon nañ ci dëgg ak yoon ak ku nekk xam palaasam ak wareefam xam nga coowal coow jaru ko uh-huh. lu ñuy waxtaanoo lu ñuy waxtaanee moo fi am ba nu waxtaanee rek déggoo am na ci la am solo loolu aussi maa ngi ci sargal euh, compréhension bi ci meeru Ndakaaru am mais aussi compréhension wu bi ci Babacar Touré am te nit ñi bëggoon ko mbubboo di ko xeexee bëgg a def xeex Ablaye Wade ak diw sàngam ñëpp bugg ci porox ndollu xam nga réew mi dafa am ñoo xam ne nii dañuy def mbiru euh, bàcckat xam nga mooy bu ñuy ji doo gis bu ñuy ruuj doo gis bu ñuy xolli doo gis bu ñuy góob nag ba pare rek ci lay yegg si moom rongaraas pour bëgg léegi duy ab saakoom dañuy yóbbaale daal dañuy toog duñu def ay pexe bu affaire na këtt na jon ñu bugg ci profito xool koo xam ne bu ñu jëmee moom am lu ruus wadd ci ñoom waaye diw kat moom am nay groupe de presse moom kilifa la ci média yi soppi xeex bi xeexa moom Ablaye Wade comme ça ñu profité am ay antenne di wax lu nekk ñu delloo ñu suñu suñu suñu fay ñu suñu bon façon politique boobu moo amatul moo amatul njëriñ. mais léegi juboo ngeen ci suuf seeg lépp. non dafa déggoo li ma wax pas juboo nañ totalement mais li gën a am solo daal déggoo nañ ci daal. ban xeetu déggoo la waaye déggoo bi mooy ku nekk xam place su keneen kii bañ a dugg ci cëru keneen kii ñu jaar yoon. mu leer nañ est di nga leen jox terrain comme ni ngeen ko diggee. président lu mu wax def ko mag la moo xam. mais est-ce que joxe du non dama bëgg d'accord lu mu wax def ko. ok mais est-ce que fi mu nekk nii xalaat ngeen ba gis terrain yoo xam ne mën ngeen ko jox mairie Dakar. li ñu leen jox mooy dafa li ngeen bëgg dangeen di bind wax dangeen ko bëggee ngeen ñëw ñu jox leen ko loolu daal fu ñu indee kayit ba ñu ba méngoo li yoon laaj ñu yombal leen ko. xam nga suuf est-ce que du nekku leen di bloquer ay projet mairie Dakar. mukk laa dina mukk laa dina xam ma li gars yi fàtte mooy mais suuf suuf suuf réew mais nguur a ko moom li nga moom sama pëyoo tey mu titre foncier boo moom bu nguur soxlaa rek moom ko dégg naa am ku naan waaw waa Sàngalkam dañu ko bëgg xaaj ndaxte nguur gi daa bëgg a jël suuf si ma ne ko nguur soxlawul xaaj communauté daal pour jël suuf sa bu ko bëggee parce que nguur fu mu amee projet wala programme am na pouvoir exproprié wu ba pare indemniser la loolu kay amul jarul jaar feneen ak yooyu. mais euh, mais loolu taxu ñoo jóg ñun. monsieur ministre euh, amoon na ay temps ba coow li ay yëngoo ñuy wax ne euh, ci yenn mairie yi am na yenn xeetu yorin jalgate am fa. lu dee kéemaan kay. nga ne da ngay envoyé ay mission de contrôle. ñoo ngi ca ci gox yu bëree bëree bari ah bon xam nga bi ci mujj. Hmm. xam nga man damaa weex dunq rek waaye nit ñi eh, bu ñu wax jotee du wax ci àll kala ji dañuy wax leneen. débat technique day taxaw. débat administratif ñu bugg ko def débat politique ak poli débat politicien xam fa ne yii ci ginnaaw toog nga yeewu gis coolu ne gra këtt ne jonn Thiès. Thiès waaw tamante dëmm gi. kii lekk na lii kii jaay na lii. ay conseillers ñoo ko doon waxante seen biir mais du conseiller PDS conseiller yu bokk parti ba nekkoon réew mi te amatul léegi parce que seen PDS ci ci xibaar bu mujj am te borom ka ko jiite woon feddali na ko barke dem boo njaay yàggul. bi amee ñoom ñoo xeexoo seen biir ñoo gañandoo ñoo utandoo ñoo ñoo jéeñante seen biir. gars yi ne ma yaa ngi koy dégg man leen man de maa ngi koy dégg waaye man administration li tubaab di wax moom ci lay ma bindee ma intéressé woo ci bu ma bindut bu am na muy kii dina def autosaisine xool loolu lan la. yónnee nga fa mission. bi loolu amee conseil yooyu ñoo def doo def demande d' ma dalal leen suma bureau bi ñëwee comme tam lu leer laa bëgg damaa indi télé bi télé bi taxaw ma leen wax leen li ngeen di wax ci amul li ngeen di wax li ngeen may wax na ko ñëpp déggandoo Sénégal. Mhm. sama loxo ba comme que damaa weex dunku ñu wax ba doyal may leen dégg naa tuuma yi ngeen teg ci diw sàngam dégg naa tuuma yi ngeen teg ci njiite mairie ba waaye man du ma tribunal du ma xattekat man li ma mën def muy déglu leen ba pare saytu loolu xool ndax la ngeen wax méngoo na ak dëggam déet ndax la ngeen wax xar la wala wax ju méngoog yoon la am déet moo tax ma jël inspection yónnee ko fa ma ne yónnee ba tey indi ma pare rapport bind naa meeru Thiès Idrissa yónnee ko pré rapport ne ko ah bi ñu saytoo de li si rapport bi ci ci ci liñ ci coow li léegi nag ma jox say tontu tax nag bala ngay pes sàmm da nga xam li muy wëllis. Mm-hmm. yónnee naa ko ne ko nag may naa fukki fan ay nga ci gis. non non du ma wax loolu. loolu cër yoon mayu ma ma wax la nekk ca biir tànk parewut présomption d'innocence ak respect secret. dossier d'instruction ku dossier boobu du ma ci wax. yónnee naa ko daal jox nañ la pré rapport nee naa ko jox naa la pré ko Idrissa yónnee naa ko Idrissa ci turam parce que mooy maire ba. mooy maire Thiès. xam nga nag adjoint même boo amee délégation de signature maire ba. moo am responsabilité acte ya nga signé. loolu moo tax d'ailleurs waxuñ mooy tànn ku ko neex mu jox ko délégation signature bu ko neex sax jël ab conseil simple dinaa ko jox na la fukki fan ak juróom nag nga tontu ma laaj yi ci ne liñ ci wax mu leer ak lu leerul bu paree nag ma xool sa tontu yi ak li nekk yëpp gaa yi def seen rapport définitif bi nag daal di ko yónnee. bu laajee bu laajee bu laajee ngërmande ñu gërëm leen bu laajee kañ ñu kañ leen bu laajee daan ñu daan leen. kañ ko jox. maa ngi ko yónnee defe naa man na yoon fi mu nekk nii juróom-benn fan defe naa. juróom-benn fan ci yoon. kon des na juróom-ñeenti fan. waaw lu jege fukk nga daal waaw mu tontu waaw. pour mu tontu bu tontuwul nag. ah bu tontuwul xaw xam nga nag buñ la bindee laaj la tontuwoo ci ci yoon. Hmm. bañ a tontu tontu la. mooy la nekk ci biir yëpp amoo loo ciy wax mooy am na. beneen mbir aussi monsieur le ministre. Hmm. Euh, ci répartition fonds concours yi. waaw gars yi ñu ne. waaw da nga sédd sédd la sédd. sédd bukki dégg naa am na ñuy wax loolu. waaw mais léegi fan nga teg loolu sédd la bukki. mbay loolu loolu jox ñii bàyyi ñii jël ñu la neex nga jox leen bàyyi collectivité benn foo ko teg. xam nga loolu ay wax ay waxu wax wax wax waxu ñaaw la rek wax yu ñaaw la xam nga Sénégal. mais am na quand même maa ngi defal amut. ci laa jëm si leeral la ko. voilà Sénégal bi décentralisation amee ba tey. amul at boo xam ne sédd lañ fonds de concours. benn ci ñetteelu boo jëlee page communautaire nga page ko ñett benn paaj bi am ko fond de concours mosta am wala bu baree bari benn paaj ci ñett ya mooy am bi loolu amee ku nekk di wax xam nga nit dina doon ñëw dige bañ bañ fal la nga commencer doxal sa diggee xam nga mënoo koo def léegi pour ut lay da nga naan dañ maa joxut jumtuwaay yu mat mais bu nekk jox la jumtuwaay rek mooy tax nga liggéey sa communauté kon wala sa commune loolu koy amul sol dans ce cas jarul jarul ñuy fal ay nit nañ jël gu préfet gouverneur su préfet jox leen ko li ñuy xaar ci ku ñu fal mooy say pexey bopp say nit bopp say lijjante yi bopp nga mottale kee ko li la nguur di jox muy li nga xam ne mooy nekk canu mbaaru koom-koom bi dox ci sa gox goxaan. mais nguur gi est def na li mu war. maa ngi ñëw mais ñu bëri lay boobu. Mhm. am na ñoo xam ne pour ñu lay dañuy song Aliou Sow takkal ko ne moom joxul lu mat ñeneen ñi am na ñu ngay coode alors que am moo gën a bëri. ma joxe par exemple bu gën a simple. Mm-hmm. boo demee tey conseil régional bu Kaffrine bi ñu may def ministre xam nga budget bi ñaata la woon cent trente sept million at ba ñuy def fond de fond de dotation ya le fond de dotation loolu. Mm-hmm. ñu def ko deux cent vingt deux millions. yokk ko juróom-ñett fukki millions ak ñeent pourtant ka ko jiite moo njëkk a soqi ci man ne damay séddale séddale bukki xam nga loolu kenn xamul lu muy niru. mais jox nga Bambey par exemple 100 millions jox ko Kër Madiabel. maa ngi ñëw dafa nag maa ngi ñëw Bambey daa am na 100 millions xam nga ren ñaata la am. matul sax juróom-ñetti millions ren. parce que li indi loolu ka ko sooke ka jiite Bambey moo def foromam def ab péncam oo ñëpp ne sama programme nangam lii moo fi manqué jafe-jafe yi yónnee ñu dossier technique bu ministre bi am na sañ-sañu joxe fonds de concours spécial code bi may na ko ko bi ñu xool loolu ñu gis ne amoon na financement war a jege. ñeenti téeméeri million waaye ñu ngi ko doon ñàkk ndaxte si amatuñ seen mairie amatu loon dërëm xam nga dafa am ñuy am pexe di yéeg di wàcc ak ñoom dañuy toog di xaar ba kenn am ñuy wujjeeg moom naan diw am na lu tax aw ma man loolu du doxal koom-koom ay dem boo dafa ñëw jëf ab forumam invité ministre ba indi ay dossier financement bi waroon am précole ñu war koo bloqué parce que amul contrepartie dañ ko lañ ko dénkoon dafa ŋàccoon teenu Bambey ba ci wàllu koom moo ŋàccoon ñu war koo duyaat ndox ma gis ne ma ne kii bu ñu ko seetaanee dina ñàkk ñeenti téeméeri million yoo xam mën na defar baax est-ce que war na tax nga xañ ñeneen ñi waaw defal nag xajuma ñeneen ñi maa ngi ñëw ma jabel joxoon nga leen maa ngi ñëw defal nag maa ngi ñëw déggoo li ma ne la mhm. biñ ko décentralisation Sénégal mosuñu jël ñetti xaaj yi benn xaaj bi am mais maa ngi ñëw ci laaj si waaye bi loolu amee loolu dimbalante waa Bambey dimbale leen dëkk ay Aminata Mbengue Ndiaye damaa dem dëkkam forum mu ne ma dama am jafe-jafe ci wàll case des xaw ma wàllu affaire école mais ko ñaata la ñu calculer muy fanweeri million ñu defal ko fanweeri million pourtant waxu ko defal ko fanweeri million nga dem par exemple am na dëkk bu ñu bu ñu xaaj tey moo pawas koto mais fukki million lañ ko defaloon te pourtant AFP moo ko yor te bala nga ñu fay ne most am sax ñeenti million juróomi million yu mat xam nga loolu ay ay waxu waxu la rek ñu jógee foofu bi ma déggee coow lépp tontuwuma ma oo ñu ma bokkal liggéey man xam nga boo jiitee ay léwén il foog ñu xarab la ku bëgg a jub ak ay mbokkam ak ak ak ña ko fal te am ay te te yaafusuñ ci liggéeyam song la ngir utub lay bu nekkee song ma mën naa jubali sax ña mu jiite ay lay ween maa may naa leen ko man leen mais nag may malgré que coow li ba nee coowal politique mais ñàkkul loo xam ne dëgg la ci loo gis nit boo gisee nit xas rek wala mere la ñàkku ci lenn loo xam ne ni li ko lal lu mu tuuti tuuti na nekk asaka ba sax dëgg la nañ seppi loolu la ñuy gas dañ ko bàyyi comme ça ñu gën a jël ay matukaay yoo xam ne dañ gën a méngale suñu jëf ak li gën a rafet ak li gën neex ñëpp moo tax ren ma def pexe boo xam ne lu mosul am ci Sénégal am na ren. Mhm. mooy bépp communauté bu Sénégal bépp commune Sénégal bépp région Sénégal am nga fonds de concours daaw fonds de concours région yi ñeent fukki millions la woon ren nekk na bu nekk bu bu néewee ba néew ñeent fukki millions. amul benn ren Sénégal boo xam ne ni amuloo mais jël naa benn matukaay bu bees communautaire bu Touba foog nga ne xel war a nangu ci planification développement nga ma jiite. parce que Touba mat na ñaar fukk commune rurale wala fanweer ci mbooloo ma fa yeewoo ci ay wareefu commune rurale mais turu commune rurale la mais la mu ëmb à part Ndakaaru gëf naa moo gën a yaatu gën a bëri doomu aadama yi fay yeewoo ci biir Sénégal bi bu may njëkkee bi may jox ministère bi fond de concours Touba xam nga ñaata la uh-huh. la woon. léegi yaa ngi fond 100 lañ ko def ren. est-ce que fond de dotation ba 25 millions la woon. Touba am ay hôpitaux am ay postes de santé am lu nekk ñu war ci jàppale poste santé yi yóbbu nañ ko ren def ko 60 million parce que lu étude la def xool ne dafa yeluwun maanaa ñu def ko le même traitement que la communauté boo xam ne ni xëy na matul sax boo jëloon Touba xaaj ko téeméer matul benn ba développement aussi il faut nga jël mesure yoo xam ne xam nga loolu waxkatu lu bon du gis enjeu économique bi ma wax mais day gis leneen lay gis. politique mun na mun na mun na pas ne da koo dem ndax ci la. da ko defal nangam la waaye war naa gis ne da ko def ndafte koom-koomu gox ba. moo tax moo laaj loolu. léegi euh, monsieur le ministre ñu xuusandi ci politique. bu la neexee bàyyi ma sol samay bot. <laughs> Euh, xam nga lu ma la ci njëkk a laaj. waaw renouvellement renouvellement UJTL yow yaa bëggoon teg Coumba gay ci kaw. xam nga loolu man damaa weex donc. mais da koy cuub nag. xam nga li ma bëggoon man xam naa ko. damaa jàpp ne réew mi téeméer yoo jël ñu fay yeewoo juróom benn fukki ak juróom boo leen xoolee seen at batul fanweer ak juróom donc réew mi xale yee gën a bari ci jamonoy Modou Diagne Fada 2000 Abdoulaye Wade falu mu jiite UGTEL bi ma joxee léegi 2007 ñu falaat ko gone yi Sénégal yi ak mag ñi ñëpp waaye gone yi yaafu ci woon 2012 bii ma jàpp ne gone nga xam ne nii bi falu ñoo nekkoon CI yi war a wote ak seen i mag. kenn waru leen a jiitu ci waar wa jigéen ñi waruñoo nag jigéen gone yi waruñu nangu jigéen ñi man leen ci waaru Ablaye Wade bi ak falaatam 2012 li tax ma waral loolu man damaa bokk ci njëkk ci biir PDS weeru kooru daaw jéeg ma fekk président France mu nekk vacances ma ko président man de gëm naa ne parti bi ak réew mi dañ laa soxla dañoo laa sàkku ñun de ci turu ndaw ñi nga nekkat candidat demal ñu ci élection 2012 yi yow lañ ci yaakaar te jàpp nañ ne réew mi mu ngi la soxla teel la gën a soxla. mais Aliou Sow dëgguma la. non non dama lay wax Boubacar Doué. est-ce que comme 86 ans 87 a maa ngi ñëw a jaay xale bu am 18 ans ak 19 ans. Abdoulaye Wade jëfam ak jaar-jaaram jaay na koo pare jar dafa jaar ba pare. baax na a imposer. Kumba Gaw pare bi lu amee waaw. bu nangul ko ñeneen may nag ñun su may ak sama maas ak samay rakk. Mhm. war nañu kenn war nañu jiitu ci xare boobu mooy falaat ko mais ma ne xale yi ma ne man man mi di wax ak yow samay at man na fanweer ak juróom léegi kee tama ko jiite nekkoon sama adjoint ci jamono ja mage dama ñaari wala ñetti at ay atam weesoon loolu ma ne comme que béy dafa yooyu ñun mag ñi lu fexe sori loolu jël ay gone yoo xam ne nii seen at fanweer la ñaar fukk ak juróom la fanweer ak ñaar la dañu jàng nekk ci cadre comme ñun bëgg Ablaye Wade nekk jóg goxaan yi ñu wax leen ñoom tamit seen chance ngir ñu mun a wone seen xadar seen gëm Ablaye Wade seen mën-mën ak seen i pexe bi loolu amee pare heureusement ci loolu laa la Coumba Gaye oote ba ma ko ooyee samedi yëgal ma ko ma ne ko man de naa la ci jàppale naa ci dugg sama alal naa wax gone yi nga xam ne ni jaxasoo naa ñoom ñëw oy silete parce que lan la ko sumboon mooy waxtaanee taxawin ju xale yi ci falaatu Ablaye Wade 2012 loolu lañ ci waxoon bañ leen ñëwee xam nga ni ñaay wax lu bare bëri bala loolu di am kee te man ak moom toog nañ suma kër man moom député Tafsir Thioye directeur général Abdou Khafour Touré uh-huh. ñu waxtaane ak euh, Ngor si Sow ñu waxtaane euh, li ñu suñu wareef ñun en que mag ak même bërëb boobu waroon ko li ñuy def def ma contre yow ba ndaje ba amee ñoo waroon ñoo fa doon ànd gàllankoor tax ñëwul mais bañ jógee ndaje ba këram laa naa ne ji ab ci ngoon ba euh, boisson man ak Tafsir Thioy ak Abdou Khafour Touré mhm. ak Ablaye Sow bañ defee ba pare loolu pour dox defar la ba tey ji man li ma naqaroon mooy benn jamono gone yi bennoo yi mel ni ñoom ñoo fi Sénégal. mais léegi non non non non bul bul bul yóbbu wax ji foofu dama ne lu tax ngeen bëgg ko imposer duñ jaarale affaire yi ci yoon. waaye imposer xam la moo tax loolu bëgguma ci wax lu bari. parce que mënu fee am xam nga laa bëggoon man ñu sumb yeesal kuréel gi jox ndo ndombo tànk yi gone yi nga xam ne ñoo amul fanweer ak juróom. loolu alhamdulilah na maa ngi ñëw fi mu nekk. mais léegi seen renouvellement yi luñ ci moo di foo bu ñu falee kenn moom contestation ba ñooñu renouvellement UGTL yépp non non non no no ma xam ne nag maa ngi ñëw commune talu Sénégal yi yëpp ak commune Sénégal yi yëpp le 27 mars bi lañ def assemblée générale fu ne def fay kuréel ma jox la par exemple boo demee sama département boo demee gis naa bale passé ay jeunes yu lakk maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw pare boo jëlee sama département man mbir ki la commune talu yi yëpp ci ñaari waxtu amul xuloo amul xeexu lépp conscience defandoo ko am na feneen foo xam ne am na woote. mais li ci ëpp dafa xeexoo non non non Aliou li ci ëpp nag. mais ci laa jëm si li ci ëpp dafa seen biir. mais il faut ñu dégluwante déglu ma wax. waaw xeexoo yi am matul asaka bi bi ñu defee renouvellement lu mat ñeenti téeméeru nangamu gox Sénégal dañ ko dañ ko samp amul coow li def recours ñeent fukk loon ak juróom-ñeent. Hmm. tey xëy na tey bu boole lépp war naa mën a jege ay téeméer xam nga li ñu def nekk nii muy président Mamadou Seck ma jiite kuréel lay Keita Fada Socone donc Aliou Sow ñu démb maa ngi jógee ñu ngi jógee ko permanent xam nga benn waxtu minuit passé di def suñu liggéey pare dem fa di def commission nationale d'instruction des recours toog cas par cas def ay décision parce que xale yi PDS man maa ngi leen di sargal au moins xam ne fi nekk nii seenu jafe-jafe ci biir parti bi lu ñu jël rajo yeeg di xarab di xaste wala jël ay sémmiñ wala ay paaka wala ay jaasi di ko fàccee seen bopp léegi dañuy bind léegi ay recours mooy óolu nañ seen direction parti óolu nañ yoon ñu ngi jëfal mëngali seen jëf. kon yow jàpp nga ne jàpp nga ne. renouvellement yi dina dem ba yegg. ba ngeen fal. ku war a jiite secrétaire national xam nga ne imposé lu mënta am ku magee jëfam. dafa dem Rufisque dem assemblée générale jéem a xeex pour bokk ci bureau pour bokk délégué ya tous les jeunes ce qu'ils ont bu leen paree ñu def suñuy département ba pare def ay bureau département jël fu nekk le neuf bii la ñuy tàmbali loolu chaque département ñu ñu oote assemblée générale fédérale bu ne yónnee juróom-benn commune bu nekk yónnee juróom-benn délégué ñu samp seen bureau tànn seen i délégué juróom-benn yéen li ñëwal ci au niveau national ñetti jigéen ñetti góor bu loolu pare ñu jël fédération yi am Sénégal yëpp bu nekk ne ñetti jigéen ñetti góor ñoom ñooy nekk collège électoral national bi ñooy tabb nag seen bureau tànn seen secrétaire général national seen secrétaire national bu juteel kooku imposé mënu faa am parachuté mënu faa am xale bu fa falu da wone loo xam ne ni say morom óolu la ba dénk la couleur gi nga xam ne yéen ñëpp a ko bokk waaye nag xam nga euh, man dama nekk koo xam ne ni lépp loo xam ne day yëngatu ci PDS nekk njëriñu Ablaye Wade dama ci dugg sama loxo. ba ci ba ci dogaale cortège Macky Sall ak violence. sos la sos. defoo loolu lu tax ñu gis fa sa oto. mais sos la. xam nga lu tax ñu gis fa sa oto mais dégg nga li ma la wax sëñ bi xam nga loolu bugguma ci waxaat mais naa ci waxaat xam nga la bugguma ci waxaat parce dafa may kilifa yu mag ci réew mi yoo xam ne dama fonk leen. muy Mouhamadou Boun Forum Civil ak Mansour Kama dañ oo Macky oo Aliou ñu ñeentoo toog waxtaan ñu seen communiqué yónnee ko président ñu ngi liir ko. Mhm. di dox jàmm ak salaam. jox leen cër tax na bëggatuma wax ci wax jooju nettali xuloo xuloo la yàlla ma tiim jomb naa façon yooyu je suis contre des méthodes comme ça lu semaine lu jiitu coow loolu di am Macky dafa dañ dajee Euh, Malem Odar ma wàcc sama oto ànd ak sama responsable yëpp responsable parti yëpp ñëwee liggéeyal foofu ñu dajeeg moom mu wàcc oto ñu nuy wante ak wala rante télé bi filmé ko ñu waxtaan loolu pour wane Sénégalais yi lii mooy démocratie bokkuñu yoon mais du ñu ay bañe ginnaaw àndoon yow amoon ngay temps ànd nga ak moom sax déjà. mais ba ngeen nekkee déggoo li ma la man kay président Abdoulaye Wade toogoon na ñoom Doudou Wade ñëpp toog audience amoon. ci jamonoy coow la. coow xam nga lu ma waxoon. Hmm. ma ne ko Macky Sall ci biir parti bi ñi muy xëccool ñëpp fii ci parti bi ma jàppale ko contre ñoom mais Macky Sall face à Ablaye Wade seconde ba ca tegee ma songu ko parce que man Ablaye Wade laa yoral bor yoralu ma keneen bor du Macky Sall Macky Sall bi may xamante ak moom damaa nekk député ba pare nekk ministre mu jiitu ci juróom-ñeenti weer ma ci jiitoo fa la ñu man ak moom. Aliou mu jiitee ma jiite xale yi mu nekk premier ministre ma nekk ministre am yàlla def ñu jaxasoo. fonkante ah. wegante cofeel judd juddu ci. mais ci biir parti bi man PDS gi Ablaye Wade bu oote woon sama comité ñu dàq ma ma def recours contesté loolu parti bi duma ko dul bàyyee kenn du ma ci gedd du ma ci gedd gedd bàyyi ab ministère moom gën a yomb bàyyi PDS. génération du concret nga bokk. man PDS laa bokk. mais génération concret nga gën a jege. PDS laa bokk man Abdoulaye Wade laa gën a jege. dégg naa ba nga bàyyee teg Macky Sall Karim Wade nga gën a xarit toog jubóo. xam nga loolu li ko indi Karim Wade maa ngi moom avant amuñ problème mais amuñu relation bu njëkk jaxasoo wuñ sequñu dara. mooy duñ du nekkuñu noonu nekkuñu xarit dañoo bokkoon parti bi bokk président bi bokk secrétaire général national bu parti bi mais amuñu relation. gars yu bëri nag euh, xam nga comme Aliou Sow dafa nekk kaa ci ñoom. ñu koy jiiñ lu ne du ko taqal lu ne mais moom ku am xel la ko am ràññee la bi coow li na kët na jow ku nekk di wax dañ bokk xarit maag moom muy Cheikh Diallo sama xarit la benn bakkan di xaritu Karim Wade benn bakkan mu wax Cheikh Diallo bëgg naa gis ak Aliou Sow Cheikh Diallo dox ko ma ne ko seex yow du ma la bañal dara coow li muy bëri bëri am la wax mu ko def parce que mënuma yow ñëpp di ma bàyyi di ma xarab est-ce que nekkul sergent recruteur non ñëpp di ma xarab yow ba ba ma génnee gouvernement ñii di ma xeex di ma xarab fa nga doon ñëw suma kër ñuy añaroo ma ñëw sa kër ñuy añaroo parce que mosoo nangoo dugal ci diggante Aliou Sow yow leneen lu dul seen xaritoo ma ne ko yow boo waxee loolu du la ko bajal même yow maa ngi xool suma diggante Karim ci yow ñu toog waxtaan ñu ñett kot yàlla ñu seede la ma fa dégg mu wax waxu kilifa la waxu ba say àndandoo waxu fa ngay dugg mooy ñoo bokk jamono bokk parti bi bokk président ràññee sama jaar-jaar ak sama liggéey ci biir parti bi ne ma sa mag laa sama rakk bugguma suma diggante ak yow am lu ci yàqu dama bëgg ñu liggéey jàppale président. liggéey defar réew mi jàppale Sénégal ak président de la République. ci loolu lañ fasante kóolare boobu ak tey cër la ma woon ma di la ko cër ba man nag ma xool benn fii te jamono jooju ñëpp ma doon xeex nee nag man bu ma ñëpp di xeex nga bañ a bokk ca xeex ba ñenn di ma xeex di dem mbubboo wala bëgg lu la neex nga kursuke ne ñëpp yow won ma jox ma loxo jox won ma ne sama sama mag nga sa ma fay la ko ba wis la ko. <laughs> léegi loolu te ay léegi vraiment te seen parti te ma daal suñu diggante. Mm-hmm. cër ak respect Aminata ngi gedd Idrissa Seck mi ngi ci yéen a ko bëgg a dàq sax far comité directeur parce que dugal ngeen motion pour loolu ma liir ku mel ni Pape Samba Mboup nee na PDS dafa nar a ñàkk aamam maanaam daal les libéraux authentiques ñu xool ngeen ni recycler ci boobu ay transhumants ñu nekk ay post yoo xam ne tey jii 19 mars bu ñu koy feete ñu wër Ablaye Wade ñëpp ñu ñëpp boo leen jàpp ñooñu bu ñu yoroon bouton bi war a indi alternance 2000 dañuy couper courant bi waxuma duñ sax bës bouton bi. man xam nga laa gisoon man. Pape Diop laa gisoon Modou Diagne laa gisoon Aliou Sow laa gisoon. 2000 ah. maa ngi maa ngi ñëw euh, Habib Sy laa gisoon non non da ngeen ne 19 mars ñëw wër Ablaye Wade mais ña ko wóoroon man ci laa bokkoon Fada ci la bokkoon. ñeneen ñi si des na Pape Diop ci la bokkoon. ñoo fay dogal ministre. ci la bokkoon ku fi gën a dogal Pape Diop. ku fi gën a dogal Souleymane Ndéné Ndiaye ku fi gën a dogal xale yii may wax. transhumant yi ngeen jël ku fi gën a dogal Habib Sy mais tey d'accord nga ne PDS amam mi ngi koy ñàkk. Pape Samba Mboup wax na loolu li ma la mën a wax mooy sëñ bi ku yokkuut yaa ngi dellu ginnaaw. kuy dagg di sànni nag. ku yore kilo mburu di dagg di sànni rek dagguy sànni de xam nga tax président de la République ba mu nekk président dafa élif Sénégal gépp war a njoboote ñëpp ci jëfam ak doxalinam am na ñu ko ci gën a wekk gën koo fonk. tey jii ci jigéen ñi am ngeen problème parce que ku mel ni Awa Diop mer na nee na Awa Gueye Kébé du ko jiite 2000 Abdou Diouf la wotel 2007 Idrissa Seck la wotel kon kooku waru ko mën a jiite man du nettali xam nga ah déet non wax ma la nga nettali mais dama la bëgg a wax rek ay exemple laa lay jox yu concret waaw Pape Diop mi wax gaa yi nga wax ne ñi ngi ci tànkam tànkam président Sénat nu mu nekkee ci tànkam <laughs> baax na ku nekk ci tànkam da nga ji da nga nekk deuxième personnalité état bu Sénégal tànk xam nga tey jii PDS est-ce parti làmb juñ ko sàjjee bu galan ba neexul kenn du ko wàlliyaani bu PDS doon tas kenn du fa xëccoo place wala di fa xëccoo jege Ablaye Wade wala di fa xëccoo. ah ñoo yor muraake bi ñoo yor muraake boo xam nga nag. gaa ñi muraake teewu wax xam nga. Ah, yi ñu ne xam wax benn jour benn bés ma neen. Mhm. nañ bàyyi wax yu ñaaw. Mhm. boo jëlee par exemple suma bàjjan dina fal jaañ kooku xam nga ne mënoo jàpp ne ay transhumance ko ci dugal dafa liggéey am tur ci réew mi nekk fa mu ne ñu fonk ko mu gis Ablaye Wade def ko càmmeñam Ablaye def ko jigéenam tàllal ko loxo ne ko dama bëgg dugal sa loxo ci li may liggéey ci réew mi bëgg nga réew loolu nga bëgg def loolu ne transhumant kooku teranga taxu ko daw ñëw ndomb taxu ko ñëw ut ñëw kër taxu ko ñëw li ko taxa ñëw mooy oy si càmmeñam bay defee réew mi te réew mi sox ko te ñu ci baree bari noonu la ñu mel ñàkk am na ci nag noo xam ne nag ay lay wet moom mooy loolu waaw waaw waaw loolu am loolu mooy loolu da moom am na ci yoo xam ne moom mooy loolu man kay ma ne mu tax joo xam ne dëgg am na ci ñoo moom man de doy dëgg neex yàlla personnellement doy nañ kéemaan doy nañ kéemaan loolu doy kéemaan googu nag nag ñoo yàq parti bi doy kéemaan am na ci ñoo xam ne PDS juddu lañ PDS su nàmp lañu PDS su yar lañu waaye ñoom tamit sikk nañ xëy na man mi di wax yow ñàkkul koo xam ne jàpp na Aliou Sow dafa sikk ci parti bi waru fee moom li yàq lay defar mais jàpp naa ne ñu gën a gëm nañ ne liy defar man ci laa bokk. yéen a ngi nekk ci tànk dàq Idrissa Seck ba tey. wala ah bàyyi ngeen ko ak ah, motion la kat bul wax ah bon. waaye xam nga yéen a ko voté comité directeur. waaw ñun fekkeewuñ damay laaj mais moom dafa moom dafa siisonné du dem fenn. moom kay dana ku ko dàq sax mu bañ na. yow la mooy sa problème ak Idrissa Seck. amuñ problème xam nga lu ñu adversité bu métti ngeen am yéen ñaar amuñu problème Idrissa Seck dafa am ak problème te man dama gëm ne politique euh, ngor ak fit ak leeral dafa fo dafa dafa laaj. bu ñaar di xëccoo na nga tànn fa ngay tànn waxatuma nag sama kilifa man Ablaye Wade ginnaaw yàlla yonent bi gis-gisam vision ak yéeneem ak kóolute gu am ci ndaw moo tax tey man fanweeri at ak juróom te ñu mën cee génne juróom-ñaari atu ministre ak ñetti atu kooku goree ak calcul ak bon ma ngay tàmbale mu nit song ko may tàggoo ndax naa ko fayul am déet wala li dal ci koom may xool lu nit def sama bàyyi man bu dund te du ma ko nangu waruma nangu ni def ko Ablaye Wade parce que nag ay la yéwén féete na wan na ma cofeel ak encadrement ak tàggat ak jàppale nga bàyyi au sens républicain du terme pas boo xam ne ni waruma koo fekkeel xaste xarab ak song Idrissa dafa song Ablaye Wade ñoom problème ñoom ñaar man Idrissa yorul ma ko bor Ablaye Wade laa yorul bor Idrissa du sama chef Ablaye Wade mooy sama chef du suma njiit Abdoulaye Wade mooy suma njiit du sama royukaay Abdoulaye Wade mooy sama royukaay kooku bu buñ amee jàmm ma am ak moom jàmm bu amee moom xay am man xay kooku moom dafa bëgg mu leen nañ senegal wax naa leen de PDS daal su ma xaritoo ci nit ci biir PDS dafa nekk ci sa kilifteefu Abdoulaye Wade lu ñu jaxasoo jaxasoo ci biir part bi bés boo ko songee ma song la. Aliou Sow maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax si ñëw bi nga ñëwoon tey jii ci biir émission bi maa ngi nga ma nag ñàkkloo ma lool de. <laughs> ñi ngi sant di gërëm mbokku téléspectateurs yi di leen dig daje ci beneen émission Pile ou Face incha